su ko defee ñu mën a ànd ak ñoom ñu leen ciy gërëm bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ay ca ñu yër yenn kaay yi com laay soo paree alaaji Babacar euh, sunu grand réalisateur yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw bii ngeen ma ubbee tey bii neex na ma couleur bi am na toq rouge xaw a nduróog li ma sol couleur bi gars yi nañ mooy bleu wu Marseille man nag yenn bi damaa neex bii mooy le réveil journal ñu ubbee ko tey ci àjjuma ji mu ne Nicolas Sambou mii mooy frère Ousmane Kabiline Diatta supposé membre du MFDC mu ne il balance et il dit entre guillemets ñu ubbi mu ne on nous a proposé cent millions yaa ngi dégg. Hmm. plus des passeports diplomatiques loolu yëpp xam nga pour lan. Hmm. pour mouiller Ousmane Sonko mi. kese. kese. Ngoné Saliou mu ne émissaires yi dañoo ñëw rencontrer leen. ba pare def leen ay proposition yoo xamante ne ay proposition yu indécente la bu ma la nee indécente bul xool sama tay baas hmm. Pape Ousmane yow laay waxal yaa ngi dégg mu ne aller dans leur presse mu ne et dire que Sonko nous a envoyé pour poser des bombes à Dakar mm-hmm. mooy wax ba tey de mu ne se mêmes personne la ñii ma lay wax nii ba tey mu ne nous ont dit que même nos enfants et nos femmes mm-hmm. peuvent bénéficier des passeports su fekkee nangu nanu yàq salteel tilimal image yu leaderu Pastef bii di Ousmane Sonko mm-hmm. révélation yaa ngi commencé génn chaque jour nga jëfee mu ne nous avons refusé danoo bañ ba tëdd ci tali bi mu ne car nous n'avons pas besoin de lien avec Ousmane Sonko beneen bi mooy Ousmane Diatta mi mu ne il est toujours en prison malgré la loi d'amnistie waxtaan wu yaatu la Nicolas Sambou mii ak sunu confrères yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yéenekaay bii la réveil lii ay révélation yu doy waar la yu kéemaane nekkati hmm. pratique yi moom mu ngi am ba tey Vox Populi mu ne quatre jours mu ne après la présidentielle Diomaye l'élu et Sonko ñoom ñaan ñëpp ànd nañ dem palais démb <laughs> waaye yow ma ne ñii ni ñu duggee ci biir palais bi dañ naan càkkas gin gin càkkas càkkas gin gin yaa ngi laal moo waaye yow lii lii kay mooy suma laal moo laa moor gën sama copain bi dama koo bëgg invité waale Diomaye ak Ousmane Sonko laa ne bi ñu dugg ci palais bi dañ ne cakkas gin gin cakkas cakkas gin gin <laughs> boobu dugg Godé kontaan dama kontaan mu ne ci dans l'ambiance de la prise de <laughs> fonction présidentielle ni la cas bi demee de ambiance mooy cakkas cakkas gin gin cakkas cakkas gin gin yaa ngi dégg. mais yow dugg mu ne Macky Sall mii recevoir kii di successeur pour préparer lan mu ne le transfert de pouvoir ñoom ñaar waxtaane nañu ay bagages yu bari a bari. Mhm. prestation de serment dans la solennité le 2 avril lay doon nee yàlla may gudd fan ak wér ak fekkeekub tal ca prise d'arme ba loolu dana neex mu ne une quinzaine de chefs d'État itam ñu ngi leen di xaar fii ci Sénégal. Mhm. mu ne passation de pouvoir au palais ginnaaw la cérémonie du euh, CICAD incha allahu rabbi yàlla nañ ci yàlla yóbbu fête de l'indépendance il y aura pas de défilé mu ouais. ne mais il y aura une cérémonie de levée de couleur au palais mm-hmm. c'est comme ça que ça va se passer finalement dans la sobriété mm-hmm. Tafsir Thioye nag il paie sa défiance vit sa défiance pardon vis-à-vis de Karim euh, euh, gouvernance économique aussi le journal nous en parle ginnaaw gi ñu ñëw ci l'observateur conseil des ministres confidence yi mujje en salle li tax ñi ñàkk les raisons de la défaite mu ne le procès de la transhumance mu ne il faut revoir le parti ban parti la bul juum de lu Pastef boobu cool fine nice APR foog ñu xoolaat ko mu ne et reconsidérer comment faire la politique il faut assumer le statut d'opposant waaye boo ko dee assumer ngoone saaliw yaa ngi dégg xuree si ñaam ko def ak dignité bu loolu weesoo nañ ci yokk résilience ñaari mooyo ngi nii ñu compliqué comprendre mm-hmm. comme meilleur délai ñam ci ay grenade lakkali bu set bu soobee yàlla li lay wax nii doo ko comprendre man nul ne peut faire de niil yow dox nga doy waar niil niil niil ma ne ko niil na peut faire de deux oppositions consécutives mënul nekk bàkk yunti yéen kay bi ne ko wéet gore wéetaliku gore bu ëllëgee nga am manoore waykat ba noonu la ko waxee moom da ko dagg ca xarandeen deka mu ne itam digne en toutes circonstances lu mu métti métti lu mu tar tar situation bi lu mu métti métti grenade la caramasel lu mu saf saf bu bële bi lu mu saf saf taxawal kasuma lu mu tàkk tàkk demal bu la ko woogee baleel bu la ko woogee bul woote ndeysaan wuy jil sama xel dem na ci maada ba maada ba gëj nañ koo dégg ndeysaan ba mu woy woy bu ba am nga ca baat ba laa gën a gis maadama ñu ngi leen nuyu bu baax cérémonie d'investiture Macky mu ne organise pour Diomaye looloo neex mu ne am na ay invité yoo xamante ne président CEDEAO lañ yéen bu ngeen yegsee CEDEAO xam naa Diomaye dina leen wax loo xam ne di ngeen xam ne li di li ci Macky du ci Diomaye mu ne celui de la Mauritanie boo moytulee du ñu ñëw suñu gan la mu ne ak ay démarches yoo xamante ne invité prise bu mag moom le président de la République di waajal ki nga xamante ne moom mooy le nouveau chef d'État cinquième président âgé de 44 ans le tout jeune Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma ne Aly Ngouille Ndiaye mii mu ne conseiller naa nouveau gouvernement de faire trois points de suspension Aly demal garaawul ñoom billaay am nañ ñu leen kii ñoom xuree see ngi fi amul problème yor yor mu ni <laughs> Macky balise le terrain mu ne à Diomaye raxas nañ ba mu set Macky àbb na bale bi bale bi waaye gis ngeen marche rouge yi laa ilaha illallah eh Diomaye lu sax dox ndànk dafa sawar de ak kan njaxlaf waaxu dëgër lay a waaxu. waaw mais eh, xale la nag président xale xale bi xale yi démb nee nañ yàlla mën na lu ne. na lu ne. ay waay ay waay li li gën a li gën a touchant ci image bi dinaa la ko wax après bu ñu koy décortiquer. waay loolu dinañ ci ñëw après il faut ngeen ñëw ci mooy mooy. nekk kenn du kenn du kenn du borom borom yére bu ñuul mi nekk ci ginnaaw borom baxane bi. mooy ki leen taxaw ci ginnaaw. kooku mën a seddal xol kay. ah yàlla xel de les échos mu ne adieu à son cabinet hier mu ne Macky demande à ses militants de retourner à la base dellu leen ca base ba dellu leen liggéeyi mu ne ngeen opposé wu dignement Pape Ousmane. Hmm. da nga ànd ak dignité <laughs> man ama xaalis waaye am naa dignité dignité yaa mu ne des membres de son cabinet. qui hmm. s'attendaient à être appuyés financièrement totalement frustrés yéen moom xaalis bi <laughs> xaalis bi moomu leen ko xaalis bi xaalisu askan wi la. ngeen di xaar ku leen di jàppale 12 ans de règne. nañ ko mhm. préparation de la prestation de serment et de la passation de pouvoir mu ne Macky présente les dossiers brûlants du pays à Diomaye mais également à Ousmane Sonko. ginnaaw les échos l'info mu ne Diomaye en tête à tête ak le président Sall mu ne la transmission du pouvoir l'appareil a été euh, lancé hier ci seen mhm. euh, rencontre bi ñu am bés bi le jour Sonko ak Diomaye mu ne pour la première entrevue avec Macky. nabu koor bu la yàlla nattoo ci image yi ba nga rak mbëkk bi nu mbëkkante ama góor ni fii la ñuy kiiwante waaw ñoom ci konkon bi waaw konkon googu waaw konkon bu silwise baalo mu ne l'ombre tutélaire Sonko dans le protocole un coach en arrière-plan Le journal se pose la question mu ne accolade et sourire après les coups de serment le avril au CCAD mu passation également de pouvoir ce sera le même jour pronostic euh, déjoué également pour le leader du PRP on parle de Déthié Fall il rate progrès et puis le journal nous en parle gën leen yéen kaay bés bi le jour libération ñëw ci rebondissement ci TF1 TF 145 ou r mu ne sale temps pour la SNHLM SNHLM bi ginnaaw procédure bu ñu déclenchée par les héritiers de feu Ousmane Meng mii mu ne Djibril Ndiaye Mariam Meng tribunal bi dafa ordonné la radiation de la préno prénotation inscrite mmh. sur le titre foncier au profit de la SNHLM dossier bi daal compliqué na daal boo bëggee daal jëndal yéenekaay bi dëgg président Bassirou Diomaye fay mi ak Ousmane Sonko danoo demoon démb palais yéenekaay bi nañu la transition dafa nekk en marche ginnaaw libération ñu ñëw ci beneen yéenekaay sur quotidien réflexion inachevée bu building administratif su Macky Sall. musuma mhm. gis tabax bu yàggee nii. <laughs> mais réflexion bi c'est à coût de combien de milliards ñaata milliards lañ ci def. dernière nouvelle on parlait environ cinquante milliards. c'est abusé na ci dix milliards te dix sept milliards la tàmbali yow. dama ne. te ba tey mënuñu fexe ba. ñu ngi réflexionné rek. dama ne c'est réhabilitation bi ak rénovation au siège gouvernement au Sénégal bi. mu ne sans le résultat escompté ñoo ne dënnu yéex lekk cinquante milliards de francs. mu ne voilà un autre défi auquel devra se confronter le président Bassirou Diomaye billaay Bassirou Diomaye Faye yal na la yàlla jàppale ci taxawu la li nga war a régler ci réew mi moo bari mu ne à côté des scandales di des fonds Covid boobu moom yàlla mu dagg sama xol bi Prodac affaire Petro-Tim mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneeni scandale yu ci ne mu ne signe la lutte contre la corruption wax na ne da ciy xeex mal gouvernance ci xeex mi la bokk mu ne des sources publiques et puis euh, le gaspillage organisé en système mu ne loolu yëpp ce ne sera pas un combat gagné d'avance building bii mësuma gis construction bu dul jeexee ni yàgg na xeetu yàgg boo xam ne le quotidien mu ne rencontre diggante Macky ak Diomaye mm. mu ne première sans faille macha allah mu ne les deux hommes échangé nañu sur les grands dossiers de l'État Diomaye nag xam nga moom moo gën a féete xale mm. journal bi dina ko waxal dem naa ca ba nag quand les lions sont orphelins d'ISO mm -hmm. le journal nous en parle en détail on parle là de l'absence de verticalité ci li nga xamante ne moom mooy équipe nationale de football yow nag kaay ma wax la Pape Ousmane xam naa lii lu ma lay wax nii lu lay jaaxal la hmm. man Pape Ousmane damaa mënul football eh? laa ilaha jaaxal na ma kay man ku ma mës bokkal équipe hmm. bàyyi nga ma xel bul fàtte ni jomaay milieu terrain la de man milieu de terrain laa doon football kan ah. c' est que problème bi ma dama am problème bu remonté bal ak après nag la ñu décidé ma nekk góor mais xam nga xam naa taay bi moo tax ma gaaw a bàyyi mais dama aayoon football. làmb nag mooy sport boo xamante ne wax dëgg yàlla bàyyi naa ko ajaratu na bu ko moom dafa bëgg làmb moom elle est passionnée tout <laughs> Max Mbargane mii mu ne sur le combat royal bi contre Modou Lo mu ne Siteu uh-huh. dafa war a relever le défi pour être le roi des arènes. Mm-hmm. Max mu ne. Euh, moom manager am la xam nga mu ne te en même temps encadreur technique bu Siteu Max Mbargane dafay prononcé wu ci combat bii nga xam ne moo war a dox ci diggante Modou Lo ak Siteu mu ne te poulain am war koo disputé war a mm-hmm. jàkkaarloo ak ki nga xamante ne fu mu nekk nii moo takk jàjj ji waaw léegi sita va <coughs> da ngay dem vaar ah déet damaa bëgg Siteu kay bu moom bu fekkente ne bëgg na na ñëw lu la ñi la <laughs> ñam ne. Seydou Ndoye nee na xanaa da nga fàttali ne da nga mënoon basket par hasard. basket tamit. <laughs> oui ma ah. Khoureyssi de damay bañ wax fi ay affaire lii ya tax ma xamee ko bokkoon nañu équipe. ay ay xaaral bi jeex dinaa la wax lan la. merci Nobel jërëjëf merci pour la